tey jii bés bu mag la ci ñun en tout cas amna contentement am mbégte dalal wa ambassade dalal autorité yi ministre de l'éducation nationale Yoni. muy euh, le DFC Mohamed Moustapha Diagne muy euh, Seni Fall Ndiaye coordonnateur du SIMEN et le préfet de Rufisque ñom ñaar ñëpp ñom ñett ñëpp ñu ngi won fi tay pour nous dallo ci salle Fab Lab bi ñu ambassade de France jox salle bobu nak la salle bo xamné bi matériel bu innovant matériel bo xamné bi danaka au Sénégal ñetti école rek ñoko fi am école franco-sénégalaise bu Dial Diop école franco-sénégalaise bu FAN, ak le CRFP de Dakar bi nekk ci Rufisque ñetti école yoyu, mom la ambassade bi dotée de ce matériel matériel permet permettre enseignants élèves maîtres formateurs maîtres d'application directeurs d'école d'application et évidemment le grand public permettre nous ñuy innover de créer des ressources et des outils numériques pour que eh, nous puissions njàngameex njàngale dañ koy yaatal si ñi nga xamante ñoy sommes kat yi té ambassade bi yamul fofu depuis trois mois nos formateurs nous avons une di formation pour utiliser le matériel bi ñu donc nous avons un plan de formation qui est soutenu Nous allons suivre chaque mois dinañ def ñaari école franco-sénégalaise bu pour nous taguer pour ñu formateurs pour nous utiliser le matériel au grand profit euh, des élèves maîtres et des enseignants